mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di am mbégte lool di daje ak yéen di leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di dellusi waat ak yéen ci suñu juróomeelu dars bi nga xamante ne moom la mooy euh, waxtaan bi ñu tuddee al azkar ñu ngi nekkoon ak yéen ci euh, bi paase di présenter lan mooy nelaw ak lan moo waral nelaw tey nag ñu bëgg ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moo jiitu sax avant ngay nelaw muy tegginu nelaw ndax it nelaw dafa am ay teggin am lu ko jiitu waaye bu fekkee dangaa bàyyi comme ni ñu ko waxee woon ba gëmmentu rekk door a dem tëddi loolu mën na indi perturbation ci li nga xamante ne moom mooy sa nelaw doo am nelaw bi nga xam ne moom nga bëgg donte dangaa nelaw sax lu tolloog ñaar fukki waxtu wala nga nelaw sax loo xamante ne xaaju journée bi la du tere boo yeewoo chaque fois da ngay sonn islam comme niñ ko waxee woon bii paase bàyyiwul dara loolu dafay tax jullit bi xam ne léppam organisation la comme niñ ko waxee woon rek ne alxuraan bàyyiwul dara yonent bi salaa salaam jàngale na lépp kon organisation boobu jullit bi daf koo war a xam ginnaaw bi nga jullee li nga xamante ne moom mooy tàkku tàkkusaan nga xam ne nag léegi jant bi mu ngi bëgg a soo pour nga dugg ci li nga xam ne mooy timis dugg ci li nga xam ne mooy géewe dafa am ay taxawaay yoo xam ne islaam ci boppam moom moo la koy taxawal su nelaw amee organisation rek dangay daal di am wér-gu-yaram parce que lekk bi day ñëw noppaliku bi ñëw nelaw bi si nga daal dem tëdd ni nga xamante ne noonu la ware kon dañuy wax ne organisation boobu islaam nag moo ñuy jàngal naka lañuy ñuy organiser woo jëm ci loolu bu fekkee ne timis dafa jot ku nekk xam na ne mag ñi sax bu timis jotaan dañuy wax xale yi toog leen def leen nii dugg si leen ci biir kër gi tëj leen buntu kër gi loolu islaam moo ko njëkk jàngale mag ñi doon nañ ko def waaye islaam ci boppam moo ko njëkk a jàngale daf lay wax ne bu fekkee ne timis jot na dugalal xale yi te nga wax leen ñu toog benn place ndax am na benn seytaane boo xamante ne ne dafay dugg ci xale yi surtout nag rawatina xale yoo xamante ne dañu bari bruit bari agitation ba ci biir kër gi xam nga dañuy wax ne bu dee yaa ci biir kër gi timis sax mucc nga waaye am na noo xam ne soo ko defee du la taxa mucc kon ñu daal di jël li nga xamante ne moom mooy xale yi rek daal di leen teg benn béréb ba li nga xamante ne moom mooy timis gi xaw a maase ñu doon leen bàyyi ñu delluwaat ci li nga xamante ne moom mooy euh, seen foo bi ci topp mooy euh, tëj bunt yi bu timis gi jotee di waajal ñu tëj li nga xamante ne moom mooy buntu yi ndax dañuy wax ne seytaane mënul ibbi li nga xamante ne moom mooy buntu kon loolu kaaraange la ci ki nga xamante ne moom moo nekk ci biir kër gi mu am nu mu def pour mën a mucc mucc laaleel njabootam ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, seytaane yooyu beneen bi mooy ñu jàpp julli waajal li nga xamante ne moom mooy waxtu timis ndaxte waxtu timis bokk na ci waxtu yi nga xamante ne dafa rëb comme ni ñuy waxee njolloor bi ni ñuy waxee kaaleen toog njolloor na noonu la ñuy waxee ne kaaleen toog tamit timis na te dafa yemul rek ci heure yooyu heure bu nekk rek dafa am loo xamante ne daf ko jagoo ndax bu fekkee ne bëccëg bi ci lañu yàlla yemale guddi gi bind na leneen wala ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñoo moom guddi ñu bàyyeel leen ko daal di ñun jël li nga xamante ne moom lañu moom jëflante ci daal di jël li nga xam ne moomuñu ko bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom muy lan muy guddi gi kon boog li ñu war a def mooy euh, tëj bunt yi wax xale yi ñu toog daal di def nag li nga xamante ne surtout mooy askar bi nga xamante ne moom mooy askaru ngoon gi ginnaaw ba ñu defee ba nga xamante ne moom mooy askaaru suba si bu ñu jullee ba pare bu ñu jullee fajar ba pare muy suba gi am na lu ñu war a def bu ngoonee tamit am na yoo xamante ne moom lañ ci war a dolli dolli boobu mooy tax nga mucc ndax fépp foo xam ne ñu ngi fay tudd turu yàlla seytaane amu fa yoon ñàkk am yoon boobu nag mooy tax kër gi mucc famille bi mucc ñëpp daal di bokk ci li nga xamante ne moom mooy mucc ngi ñu daal di am li nga xamante ne moom mooy moom mooy kaarange bi ci des mooy ginnaaw bi nga xamee ne julli nañ timis ba pare ba def suñu nawaafil yi pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy dolli ginnaaw timis ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa daan defee ñu daal di nag euh, jublu ci li nga xamante ne moom mooy waajal tëddi te di bëgg teel a tëdd ndax loolu aussi dafa am solo ndax kuy teel a jóg bu fekkee ne dangaa guddee tëdd rek dina bokk ci faay yi nga xamante ne dafay am sa nelaw daf koy am muy lan muy maanaam sonn gi nga xamante ne moom ngay sonn te boo yeewoo doo nekk doo reposé wu daal di songaat beneen journée boo xam ne war nga cee liggéeyi war nga cee euh, kurti kurti da lay indil ay jafe-jafe ndax mën nga dem ba ci diggu bëccëg bi nga càng daal di bëgg a gëmmentu te am na liggéey booy def xëy na mayu la nga daal di nelaw ci waxtu boobu nga xamante ne moom nga bëggee bëgg nelaw kon nag organisation bi bokk na ci ci daal di teel a reer comme ñu bañ niñ koy defee dem ba ay 22h 23h di lekk lu niin euh, évité aussi di lekk lu niin heure boobu nga xamante ne boo lekkee rek da ngay dem tëddi euh, loolu mooy indi lu bari ci euh, nit ñi li nga xam ne mooy maladie cardiovasculaire yi. mooy feebar yi nga xamante ne day def soit mu nekk AVC wala problème mu tension yooyu nga xamante ne daf lay yëngal lu tax parce que da nga lekk loo xam ne dafa niin jotoo ko digérer nga dem tëddi. kon euh, teel a tëdd bi euh, dafay engendrer maanaam dafay bokk ci teel a tëdd bi fekk aussi nga teel a reer jàngal xale yi tamit teel a tëdd. yow mi mag mi nga bañ nga bañ a nekk aussi di guddee ci ay futilité yoo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala sax daf ñu koy moytuloo ndax alxuraan dafay wax ne wajtani bu rijsa minal awsaani wajtani bu qawla zuur mu ne moytandiku leen sobe yi nga xamante ne moom mooy jóge ci xërëm yi waaye moytandiku leen tamit waxu caaxaan waxu caaxaan bokk na ci werante werante boo xamante ne amul bopp amul geen wax joo xamante ne mën nga ko wax une de temps du la jëriñ ci sa wàllu diine du la jëriñ ci sa wàllu sante waaye du la jëmale tamit li nga xamante ne moom mooy kanam kon di éviter li nga xamante ne moom mooy waxu caaxaan yonent bi sallallahu alayhi wa laaj nañ ko yan bàkkaar ñoo gën a rëy bi mu njëkk a wax mooy bokkaale yàlla ashirku billah bokkaale borom bi tabaaraka wa mooy nga jël kenn wala nga jël lenn teg ko ci wetu borom bi tabaaraka wa di ñuy di sante mbagg ñoom ñaar di am looy méngatle ak borom bi tabaaraka wa loolu mooy bokkaale bi ci des mu ne day ni mooy euh, méttital sa ñaari waajur loolu bokk na ak baril kabair ci bàkkaar yi nga xamante ne bàkkaar yu mag yi la kon ñuy évité di toroxal wala di mettital wala di wax loo xamante ne jaaduwul suñuy waajur ndax alxuraan dafay jàngale ne uuf mooy baat bi gën a ndaw soo ko waxee ki nga xam ne mooy say waajur euh, euh, mën ngaa am li nga xam ne mooy meru borom bi tabaaraka wa ñetteel bi nga xam ne moo ñu intéressé ñu ciy ñëw mooy euh, wax waxu caaxaan ak seede caaxaan saxaaba yi ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy wax ba kanam gi changé mu jóg taxaw turban bi nga xam ne moom la tegoon ci boppam dafa wadd nee na ñun dañoo mujj sax tiit ndax li mu doon wax moytandiku leen waxu caaxaan ak moytandiku leen tamit seede caaxaan parce que loolu yëpp dafay am répercussion ci li nga xamante ne moom mooy guddi gi di waxtaan ci loo xamante ne amul bopp amul génn jëmeewu la fenn waxtaan ci ba sonn waxtaan ci ba mar naan ndox dem tëddi boroom xam yi sax ñu bari éviter loo ñi nga xamante ne ñoom ñoo bëgg jàng wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, xam maanaam nit rek muy naan yenn heures yi parce que dafay tax ngay nekk kuy gaaw a fàtte dangay dégg koo xam ne dala naan man de damaa gaaw a fàtte gis nga kon fi ñu dugg dafay wane rek ne islam moom bàyyiwul dara mu ngoog ginnaaw bi nga jullee timis ba pare nga waajal daal di julli nag sa gée daal di def yi nga bëgg a def yëpp daal di julli nag li nga xam ne mooy safa ak witr nga xam ne boo ko jullee ba pare léegi nag dara waru cee tege lu dul rek daa di préparer fekk nga yore nga njàpp mu tooy xepp daa di préparer nag daa di dem li nga xamante ne moom mooy waajal tëdd gi. kon euh, dafay yell ci ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, jullit bi mu xam loolu daa di pré mun a waaj. préparé wu ci lépp loo xamante ne daf koy diisal mu débarrassé wu ci loolu daa di waajal nag li nga xamante ne moom mooy tëdd kon incha allah dina ñëw euh, beneen yoon di am euh, euh, indi li nga xamante ne moom mooy li des ak askar yi nga xamante ne moom la jullit bi war a def saabuy tëdd as wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.